yéenekaay bi nee nañu am na ci ñoom fukk yoo xam ne bu ñu amul ak ñaan mbaa ñu am sens dëgg ci kaso bi la ñuy dee prison à vie di kaso ngiru dund mi ngi leen di yott fukk la ñu yu taxawaloon seenu groupe tuddee groupe ba force spéciale mu di Ousmane Seck chargé massification bu parti Pastef di Abdoul Aziz Niane Bouna Ba Pape Mamadou Seck François Mancabou ñu gën koo xam ci Vieux Gradé Mor Gueye Babacar Ndaw Abdoulaye Ndiaye Assane Dramé ak Ibrahima Diédhiou waa police leen jàpp ñoo xam le ne li ñu bëggoon mooy ca bésub manifestation ba ñu dem songi centrale électrique ba ca Cap des Biches bépp entreprise bu nekk ci réew

la fekk ci ñoom ñi leen doon joxub xaalis ngir ñu waajal seen jëf joojee ak ñenn ci ñu organisé woon manifestation yi yéenekaay bi nee nañu teg nañu leen loxo l'observateur jëlaat kàddu gi di ñu wax ne Déthié Fall Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam ak yeneen fukki nit yu ñu ne ci sécurité bu Ousmane Sonko la bokk jàpp nañu leen ba mandat dépôt leen jël leen yóbbu ca kaso ba bés bi le jour bind ne mandat dépôt yaa ngi takarnaase ci kaw manifestant yi ñu ci manifestation bu ñu autorisé wul ak turbale ordre public bi yi mooy tuuma yi ñu gàll ci seenu ndodd les éco nañu Déthié Fall ak Mame Diarra Fam ak Guy Marius Sagna tey ji ci lañ leen di atte Ahmed Aïdara ajjuma la koy atte ca tribunal flagrant délit réew mi quotidien nañu ci xëtamu njëkk Ahmed Aïdara ak Déthié Fall ak Mame Diarra Fam ñoo nga ca kaso ba Idrissa Goudiaby di xale bu góor bi ñu dañu ko faat ca manifestation yi woon koro ci Ziguinchor Soleil national nee nañu autopsie bi xam ne kër docteur def nañu ko ci ab néewam la autopsie ba wax moo di waa ji arme blanche la ñu ko rey maanaam jaasi walaw sémmiñ ku sa nee nañu doo wax jàmm le témoigné nañu moo taxit waaye yeewi askan wi jug nañu takku ba dëgër ngir seen yenn leader yi ñu téye ci kaso bi ñu génne leen Sud Quotidien nañu waaye yeewi askan wi li ñu fas yéene moo di delloo buum ca boy boy ba Ousmane Sonko ki gaayam nee nañu àjjuma ñaar fukki fan juróom-ñeent ci weeru juin danañu manifesté waat source waa nañu Ousmane Sonko nee na bu bés ba Macky Sall dana ko jàpp tëj ko ci kaso bi mbaa mu rey ko waaye moo di ñu tànn ay bés yoo xam ne bu mbaasay xotti poti di ko tëgg huit ci guddi ba huit heures dix de casserole ñu def roube national journal lañ fa nañu waa coalition Yewwi Askan Wi ñoo ngi organiser seenu riposte concert de casserole ak ay corne oto la ñu koy dooree suba ci àllarba ji vingt heures ba vingt heures dix ñëpp génn ñu def roube national ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ñu amalaat ab rassemblement bu mag boole koog nag saisir juridiction internationale yi le mandat jëpp ne waa Yewwi nañu seen plan d'action bi ñu nas ngir njattante ak Macky Sall ak nguuram Macky Sall ak nguuram direct ci news nee nañu kii di Aminata Tall taal na leen ba ñu tàkk jëppét ci am ndaje mu mu doon amal ak ay militant nga moom Aminata Tall fa la xam leen ne li xew Sénégal mënees koo tudde lu nekk ba mu des ay élection mu ne bëgg-bëggam moo di dund ci am réew moo xam ne kenn du fa salfaañi démocratie ba ci la tribune mu ne ñu fa li xew ci réew mi ci géopolitique bi ak xët-xët yu bari yi fi am kenn waralu ko ku dul Macky Sall la Sénégal nañu waaye moom Aminata Tall lu mu taal Macky Sall ko nguuram rek Dame Diop ministre formation professionnelle xam na ko lu ñu toll lu mu wax Macky Sall ko régime am yéene kaay bi nee nañu daam Diop tontu na ko ko moom Dame Diop formation professionnelle mi ngi ci xët mu njëkk l'observateur waaye ci beneen anam ubbil yéenekaay bi jéego yu am solo yi état bu Sénégal def ci wàllu formation des jeunes ca lay wax wax ji L'Obs nee nañu démb la woon ba ñuy inauguré centre de formation ba ñu tabax ca Goudiri foofee fa la joxe xibaar bi nee na ci fukkeet état bi defar na ñeen fukki centre de formation ak juróom-ñaar ci réew mi équipé ko ak lu toll ci téeméeri milliards ci libération mbirati mu yéemeeti ñaari xale la ñu yéenekaay bi xamal ne dañu leen a kenn ki ñeenti at am ci Rufisque fa ñu ko enlevé ki ci des at ak genn wàll la am moom ci seen biir kër ga ca Pikine fa la ñu ko fekk enlever ko NCA santé famille wér-wérle seen gaami di clair